taxam seetlu mu di politique kat yi nga xam ne ñu ngi ci réewum Sénégal te ñu bari ci ñoom wax waxet ak naanum ndox la ñu yemale tous pare noonu la ko yéenekaay bi waxee mu ñuy xamal ne daanaka daal ndiixee ndax ñoom ñëpp ñoo yem ci wax ba noppi dellu ca gannaaw Macky moo bees rek waaye bari na ci yéenekaay bi xëy ko doo rek moom Macky Sall ak lu mu wax ba noppi génnaat ca moo di bi muy campagne dane woon gouvernement 25 membres la ngi ci gouvernement boo xam ne daanaka picc mu jóg mandat juróomi at wax joojee fu mu mujj ñëpp xam nañu ko keneen ku def wax waxeet moo di Moustapha Niass ne nee nañu ba mu wootee atum 2007 kër euh, sa euh, kër bi mu génnee li wax mooy Moustapha Niass moo di bii nii mooy mujj doon muy taxaw di doon candidat ci ay présidentielles loolee la ko waxoon 2012 présidentielle Moustapha Niass ma nga waat ca bi nañu moom it def nag wax waxeet keneen ku def wax waxeet di Ousmane Tanor Dieng ndax moom it dane daal février ju ca teg waa parti socialiste di wutaat ku jiite seen parti bi mu sampan dëndëm ngir di jiite parti bi moom Tanor def na wax waxeet ki nga xamante ne ji moom moo di Abdoulaye Wade moom yéen bi nañu jarul ñu koy fàttali ndax li jàngee wax di maa waxoon waxeet Idrissa Seck mu nañu kenn du moom ne moo taxaw ba ndara kàmm ne kenn du ko gis mu àndaat ak Abdoulaye Wade double abomination la maanaam ñaari euh, yëf la yoo xamante ne ji euh, yoon nangu ko euh, abomination politique ak morale journal bi dee mbir yi wax waxet daal euh, daanaka ñoo ci yem ñoom woy politique yi ci réew mi professeur euh, Ousmane Ndiaye di psychosociologue euh, di wax waa waa l'observateur ne leen li ñu seetlu mooy dafa mel ne politiciens yi léegi mm, fenn ak naanum ndox la ñu yemale dañuy wax ba pare génnaat ca oustaz Iran Ndaw moom it joxe na xalaatam ndax nee wax loo xamante ne ji ba nga koy wax kenn kenn forcé wu la ci ba pare defoo ko looleel diine dàq na ko li nga xamante ne ji moo di ngor it na ko noonu la ko waxee waa l'observateur ñiy wax di ci dellu gannaaw wala ñiy wax te ko le quotidien Abdou Latif doon wax moo di mandat juróomi at yàgg nañu koo wax ko falee juróomi at lay def jël pouvoir ko nouvelle génération bi Moustapha Niasse ne moom président transition lay doon pendant euh, mandat euh, juróomi at Abdou Latif Coulibaly ne moom nañu ko fal mandat juróomi at mu defal ci réewum Sénégal yéen bi nañu ñoom ñi ko xoon ñëpp tey Macky Sall ngi def juróom-ñaari at ñu toog ne xim mel ne kon waxuñu ko woon Walf Fadjri xëy wax ci mbirum conseil constitutionnel li muy laaj mooy ndax dee su ko lakk ñëpp noppalu ndax Euh, conseil constitutionnel benn institution la juróomi juge mille polémiques maanaam ci gàttal amul benn njariñ dogal bu mu jël lu ca bari askan duñ ci ànd des décision impopulaires populaire moom ñëw ci lu aju ci jafe-jafe yi nga xamante ne ji am na ci biir majorité bi ginnaaw bi Macky Sall jëlee dogal ci ne dafay wéyal mandat juróomi juróom-ñaari at bi journal bi nañu bennoo ba aw na yoonu tas ndax ki nga xamante ne ji moo di euh, Imam Mbaye Niang dem na E kii di Mansour Ndiaye bu UDR moom it jóge na ci Benno ndax waa Ligue démocratique di waa LD du ca topp loolee yéenekaay bi moo koy laaj président Macky Sall keroog ba muy wax ne référendum bi ñaar fukki fan ci mars lay doon date la bu mu jël te moomu ko réew mi quotidien nañu ndax juumul woon ci date boobee ndax lu aju ci journée mondiale de la jeunesse bi nga xam ne ndawi chrétien yi ñoom ñoo koy def mu am doole lool seen wàllu diine date boobee la amal ci ay référendum lépp rek ngir fay coow li référendum yooyee las yi ne kay xëy ci dellu siwaat nañu nguur gi door na campagne am li mu bëgg mooy bu ñu demee ci référendum yi ñëpp woote wëy maanaam li nga xamante ji mooy constitution bu yees bi ñu daal koy doxal la euh, grand place nañu Macky ñaar moo ko sëkkatal jamono ji grand place voilà ñaar moo ko sëkkatal jamono ji benn mooy nan lay def ba bu ñu yeggee ci référendum yooyu askan wi yëpp ànd ko waaw beneen bi ci topp a war a def mooy fexe ba bu ñu ko boycotté boycott boobee du ci yàq dara la tribune xëy ñu xamale moom Macky sax leneen a ngi muy lijjanti ndax gaañ ñi nga xam ne dañu jóg di ko song di dal ci kawam ndax euh, mandat juróom-ñaari bi mu wéyal Macky Sall dajale na conseil de guerre am ngir ñu jóg defanteel ji ko li mu leen sant mooy nañu wàcc ci askan wi wax ak ñoom leeral leen ba ñu xam constitution bu yees bi ñu bëgg a doxal ci réewum Sénégal ana la moom laa te moom lay dee kàddu yooyee Awa Ndiaye yëkkatee yooyu la kàddu Aminata Touré démb ca ndajam secrétariat national bu APR wax na ko fa dégg na dëgg moom soxna si ndax nee na ko askanu Sénégal bi ñu yégee yooyu la kàddu ñoom ñëpp a choqué woon bay booy